bëgg ama moom ay waxtaan yu am solo defe naa ni bu ngeen ko gisee nii ah ngeen xam ne tey émission bi nar yomb parce que war def ay révélation yu am solo si gouvernement bi am na loo xamante ne incha allah gis na ko muy ñëw si réew mi dina ko daal yaatal askan bi combat Modou Lo Siteu incha allah dinaa ko si posé mu jëm see sànni ay kàddu rek comme que moom defe naa ne lu muy wax si làmb sax bëriwul. mbokk yi nag defe naa ne ñoo ma daal di yónni nee ma si laa joni joni eh, namm nañ ko parce que saa su génnee wax ay waxam day am solo te Sénégal lañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax. si la nuy na la. ma ngi leen sant di leen gërëm di leen jox seen wàccuwaay di ñaan ci réew mi jàmm di ñaanal mboolem ñu tawat ñoo xamante ni ñu ngi fi yàlla may leen ak tan ak mboolem ñoo xamante ni tey yaakaar gi ñu am ci man ba ñëw fi. yàlla na yàlla sottal seen yàlla na yàlla sottal seen bi ci topp it maa ngi ñaan ci réew mi jàmm. Mhm. di ñaanal askanu Sénégal xéewal. Mhm. Go ànd tal ak fekkee. di leen dalal ak jàmm ci fii nga ma fekk. Mhm. macha allah euh, macha allah Sylla Dione Dione kàddu yi am na solo bu baax a baax a baax a baax xam naa rek balaa may tàmbale nag euh, programme bi bëgg naa rek euh, sànq li ma gis muy béy bi nga xamante ne yaa ngi koy jëlee fële dugal ko ci biir li nga ma xamante ne mooy sa xamb yi di daal di jàll ak moom sëñ bi ku la xam-xam ne macha allah mbirum sacrifice da nga yëngu sacrifice su xaalis sacrifice su lu ne yaa ngi si yëngu ma bëggoon xam rek béy bi lan mooy njëriñam ak sa liggéey. waaw xam nga bi ngeen ñëw da ngeen a tombante su sumay dugg ci biir kër gi mhm. ndax man ñaari sax man yii moom du ma koy faral di bëgg di wane mhm. waaye da ngeen cee tombe mhm. ñaari nag man sama seet bu ma dee bayu ñuul dafa am lu am solo loo xamante ni hmm. dañ ko ciy faral di liggéey hmm. comme ni ko defee ci yeneen xeetu mala yi rek ni ñu ko defee ci yenn gëlëm wala hmm. nagu ñuul wala ginaar wala weneen xeetu mala bu bokkut ak façon mala yooyu loolu dama ci liggéey yenn xeetu liggéey am solo Mm-hmm. beneen bi ci toftalit dama ciy faj léegoo comme yenn xeetu ma yenn xeetu maladies yi mm-hmm. wala am na ñoo xamante ni seen mbir day toll foo xamante ni mm-hmm. il faut day laaj nga génne leen saraxu mala ngir ñu mën a seen mbir mën a sotti léegi nag bu ko defee kenn ku ci nekk la mbiram laaj loolu ngay mën a utiliser ngir aajo mën a sotti moo waral léegoo-léeg comme sa même bu bay béy sax comme sa fii bëri na ay ginaar ginaar yu ñuul ginaar yu weex ginaar yu xonq nagu ñuul nagu weex nagu xonq Mm-hmm. xeetu mala bu ne mi ngi fee fee ngeen mm-hmm. njëkk a dem mm-hmm. loolu lépp nag ay yëfi jàmbur la yoo xamante ni seeni seen borom dañoo tawat ñii seen i borom dañ leen a jàpp ci ci ñi seeni seen borom ci wàllu am-am la jublu waaw ku ci nekk sa mbir rek lim laaj moom lañ ci def ba yàlla mën a sottal loolu daal moo waral ngeen fi gis yenn xeetu mala yi ah macha allah si laa joni joni kàddu yi am na solo bu baax a baax a baax a baax mais si laa ñu waxtaanee tuuti mbirum politique. defe naa ni émission yu ñu mujjee def yëpp deful ngay révélation yu am solo nii nga xamante ne mooy parti Pastef dina am majorité. ci assemblée bi. defe naa ni seetoon nga ko. waxoon nga ko te sénégalais teg nañ seen bët nan nga gisee assemblée bu bees bi. ak waaw assemblée bi loolu dafay yoon ndax nit mënoo koo jox. fetal ba pare bali loolu. defe naa ne askanu Sénégal loolu xalaatuñ loolu bi ma koy wax sax waxuma ko sax. Mhm. donte xamoon naa ne ala kulli aal moom. Mhm. Pastef dina am majorité loolu moom leeroon na ma. Mhm. waaye na ñi am analyse politique lu ci bëri bëri bëri xamoon nañ ne. Ousmane Sonko moom euh, ndaw ñee ko jox bopp. mag ñeeg ndaw ñëpp dañ ko jox bopp. ba duggee ci réew mi laaj lim laaj dañ ko ko jox. dëgg la loolu moom ku ne xam na ko. ndax it wax dëgg yàlla sénégalais yi dañ ko wóolu dañ ko yaakaar. te it moom moo wane li tax ñu wóolu ko. Mhm. yaakaar ko loolu mhm. moom moom moom moo ko liggéey. Mhm. moo waral bi mu duggee ci askan wi laaj askanu jox ko li mu bëgg. man nag lenn laay ñaan mooy na fexe. ba euh, sénégalais yaakaar gi am ci moom. yàlla bu mu tas. amiin ndax tellement que sénégalais yi sonn nan jaaxle nañ. Euh, euh, situation yi xaw naa jafe. beneen bi ci topp réew mi métti na. ñàkk gi bëri na tabat gi bëri na. fi mu toll nii boo feebaree boo demee hôpital boo yurut xaalis doo faju ci yàlla. bu da ngay xëy am mbokk mu la tane te du la dimbale. Mhm. nga am problème mu lekk am problème mu ndékk am problème mu añ dund gi xaw a seer. Mhm. la taxoon ñoom nag munuñ ci lu bari ci fànn boobu. Mhm. mooy amuñu woon majorité ensemble. comme que nag yàlla dogal na fi mu toll nii lañ laajoon askanu Sénégal jox na leen ko. nañ jublu ci liggéey fi mu toll beneen bi ci toftali dégg naa ñu naan président Ousmane Sonko na dem assemblée man ba ma sañoon du dem assemblée. ndax loolu naa fekkee képp ñoom ñoo naan président na Ousmane Sonko na dem assemblée ngir lan. Mhm. jéem ko écarter diggante moom ak Bassirou Diomaye Faye. Mm. Ousmane Sonko njiit la. Mhm. kon dafa war a nekk ci mm, barab bi mu nekk nii. Mhm. muy premier ministre bi. kooku na nafa euh, nekk. ndax loolu moo arrangé askan wi. arrangé gouvernement bi. arrangé parti Pastef. mais bis bu demee ensemble lu ci bëree bëri bëri duutu ko mën a doxal bu boobaa saay-saay mm-hmm. yi. Mm-hmm. dafay am mën nañoo am prof ndollu. Mm-hmm. yàq lu bëree bëri bëri bëri bëri. dëgg la kon nag moo tax moom premier ministre bi mu nekk nii. na toog man ma sañoon dafay toog moom nag xaw ma nag bëgg-bëggam. waaye bu ma sañoon moom. premier bi dafay nekk. Euh, jéem a ñu seet keneen koo xamante ni dina dina mën a nekk président assemblée. réew mi man a dox. macha allah ndax ñi naan ñu dem ñiy wax naan na dem assemblée yëpp. ay naa feex kese leen. ay saytaane rek kese leen. dëgg la waaw ngir mën a am prox ndollu. Mm. Euh, ci état bi te loolu moom doxut. Mm. waaw kon nag loolu daal laa ciy wax ci fànn boobu. macha allah mm. am na solo euh, macha am na solo bu baax a baax a baax si la joni joni ñu jublu tuuti rek si sa liggéey bi. Mm-hmm. am na émission bu ñu defoon nga ne yaa ngi def samp boo xamante ne euh, si wàllum alal lay dox. mu nekk nag samp bu am solo mbokk internet dañoo ma daal yónni ne nga leeral samp bu doy waar boobu. waaw xam man ñaari sa tout le temps damay faral di bëgg sax. Mhm. léegi su may waxtaanee ji. Mhm. ñu waxtaan ci mbiram. Euh, ci mbiram actualité kese. ndax léegi li problème bi. Mhm. mooy saay-saay yi dañuy dagg sama vidéo. di ci taf seen numéro di ci arnaak nit loolu dafa bari fi mu toll ñu ci bëree bëri dañuy dagg sama vidéo di ci taf seen numéro. te loolu dama bëgg ñu bàyyi ko ndax ñu ngi ci lor nit man benn numéro kese laa yor muy 77 552 06 79. numéro boobu ku ma ci woo jotoo ma xamal ne damaa jàpp. ndax fii mhm. liggéey bi daf fiy bari. Mhm. ñii taf dagg sama vidéo di ci taf seen numéro di ci arnaak ay doomi jàmbur di ci arnaak ñoo xamante ni ay bàyyi jàmbur leen. Mhm. loolu nañ ko bàyyi dama bëgg ñu bàyyi loolu loolu baaxut loolu àq la. ñu ngi ciy rey ñu bëree bari bari bari bari. loolu dama bëgg ñu bàyyi ko. man nag sama wàllu liggéey dama doon loo xamante ni man fitus laay def. dëgg la ci laay fajee. ci laay fajee bépp aajo bu nit am. donte nag du ànd ak benn loraange ndax man mënu ma faj aajo ba pare di ci lor nit loolu xel xalaatu ko lépp lu may defal nit rek xam naa ne lii ma koy liggéeyal mm-hmm. yàlla dana ko ci dimbale ba la mu bëgg dana ko ci am te benn loraange du ci am macha loolu moom yàlla jagleel na ma loolu mm-hmm. beneen bi ci toftalit damay bëgg tout le temps fii képp ku fi ñëw sa aajo faju wala ku ma dégg téléphone mm-hmm. bu ñu waxee ba déggoo sa aajo faju man loolu laay ñaan yàlla ndax man yaakaaruma ci benn yaakaaruma ci benn mbindeef buy ñëw ngir ci lu may jox déedéet. Mhm. man yàlla suturaal na ma. macha allah dafa fekk ne faj dafa doon loo xamante ni ci sama deret la mu doon loo xamante ni lu bëgg la. Mhm. mu doon loo xamante ni lu ma am yéene la. Mhm. dafay dem sa ba à malaat yi may faj damay am yéene ngir ñu wér. wala aajo ju nit am damay am yéene. ngir seen aajo mën a sotti. loolu man suñ borom moo ma nattoo loolu. ndax man bëgguma gis kuy sonn. Hmm. bëggumaa gis bëggumaa gis ku nekk ci ak tiis wala ci njaqare hmm. wala ci ak jaaxle hmm. man bañ naa ko ba bu ma nit waxee ak jaaxlem rek man si saa si man damay jaaxle ndax bëgguma nit sonn dëgg la léegi-léeg malade yi ñu indi fii rek léegi-léeg damay gis malade boo xam bu ñu ko indee fii situation kaam day garaaw garaaw goo xamante man mi bopp sax bu ma tëddee du ma nelaw tant que malade bi wérut loolu suñu borom nattoo na ma loolu beneen bi ci toftali léegi-léeg nit ñàkk lool yàlla xam na ne heure bu ma waxee jafe-jafeem rek du ma bëgg lu dul jafe-jafeem bi faju ci saasa moo waral nag léeg-léeg am na ci yoo xamante ni comme que yàlla dénk na ma ba ma man ko hmm. ma di ko jaare ci wàllu fétiche ndax suñu borom man loo ko xam loo na ko te bu ma ko defee mu àntu hmm. moo waral lu nit ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk bu ma ko jaaree ci mbiram sacrifice hmm. yàlla day faj aajoom ci ni mu gën a gaawee loolu suñu borom may na ma ko moo waral nag nit ñi di profité ci loolu euh, di falsifier sama numéro di ko di ci di ci taf seen numéro di ci arnaak nit ñi ndax lima faral di wax rek xam-xam nit da ko wara ji. Mhm. nit ak lo meuna def amal xam-xam ci la ngay def mu don lu wér. Mhm. waye bu fekkee ne nit day duggal video nga dag video yi di ci taf sa numéro di ci arnaque nit ñi. Mhm. lolu baxut man ben numéro kasse la yor muy 552 06 79 ta orange la. kon lolu ñi def nañ ko fi fi man damay ñaan yalla képp kuma liggéeyal sa aajo soti mun lolu lay ñaan yalla di ko ci suñu borom. terewul nak yalla ak ma ci dimbalé bu fekkoon ne téeméeri nit laay liggéeyal ci ak fànn bu mën a doon am naa yaqin ni juróom-ñeent fukk yi ak juróom-ñeent yëpp seen aajo day faju loolu moom biir na moom mu doon lu leer naññi moom ak fànn bu mën a doon boo feebaree boo fi ñëwee da nga wér mhm. boo ñàkkee bu mën a liggéey leen da nga am farfoosu la ndax loolu farfoosu la doon ah? nag ci kàttanu yàlla nag waaye ji waaye nag ala kulli al moom biir na ma biir ne mbirum fétiche Sénégal mhm. ba mu daj kenn mhm. rek moo ko fi man muy man si laa mii macha allah wallaahi ñi ma ciy topp yëpp ay kër la Mhm. loolu dama bëgg ñu bay ko. Mhm. nit boko mënta jëriñ ba ko lor. dëgg la mën loolu la gëm. Mhm. dama arme bu amé ak jaxlé am ak ñakkaré ñu wax lako bo mënta faj aajoom bayil mu dem. waye waaye kantaaka tay nga euh, diko nax. ba paré di mbubo silla di ma mbubo di ci arnaak ay nit. loolu dama bëgg ñu bay ko loolu baaxut. dëgg la loolu maa ngi Sénégal yépp man ben numéro la am muy 77 552 06 79. beneen numéro bu ngeen mëna woté du sama numéro. loolu maa ngi koy bàyyiloo xel ñëpp. Hmm. waaw am na solo. Hmm. Euh, am na solo bu baax a baax a baax si la joni joni ñu ñëw rek si sa jaaro bi jaaro bi moom defe naa ne dëpp bi ñu waxtaanee ba léegi gars ngi si bàyyi xel muy sa jaaro bi nga xamante ne defe naa ni jaara kaaraange ak jaara alal. waaw bu dee ci wàllu jaaro bi. Hmm. jaaro bi moom euh, jaaro yàlla may na ma ma di ci liggéey lu garaaw. amul benn mbindeef mooy muy liggéeyal jaaro te boo ko takkee li nga bëgg doo ko am sa aaju du faju loolu moom mënta nekk xam nga jaaro bi darul jaaro kase hmm. bu doon jaaro kase kase kase ñu mën a wax waaye jaaro bi mbóot yim làmboo moo bari hmm. jaaro bi jaaro karaama la hmm. karaama gu wér la muy loo xamante ni ba ma ko dalee liggéey yàgg na bari na borom barke yi bari yoo xamante ni gannaaw yàlla lépp luñ mën a am ci àdduna gannaaw yàlla ci man mii la jaaree donte yàlla nag si sama loxo la ko jaarale waaye maa ngi koy liggéey nit ñi di ci jëriñu ak mboolem koo xamante ni sa wërsëg mi ngi ci. Hmm. jaaro bi dafa ñett façon la dafa am boo xam dix ans dafa am boo xam cinq ans rek lay diire. jaaro bi am boo xamante ni dix ans rek lay diire. Uh-huh. am boo xamante ni à vie la. Hmm, mais jaaro bi. Hmm. boo ko takkee amul benn buntu booy fëgg ci àdduna te du tijjeeku loolu ah. amul. jaaro bi boo ko takkee li ma la naan farfoos boo ko takkee am am moom. da koy bari far farfoos. loolu mënta ñàkk loolu far farfoos la. ndax jaaro bi li ma koy liggéey moo kéemaane. tey jii su ma waxoon jaar bi li ma koy liggéeye mhm. ak fànn yi ma koy liggéeye tey ji nga téye sa gémmiñ ah. wallahi lazim jaaro bi li ma koy liggéey ñi ma ko wax ci tale ah, yu garaaw a garaaw a garaaw yoo xamante ne da ciy mhm. nekk mhm. su ma ko waxoon nit nit ku ko ñemee takk wallahi lazim jaaro bi jaaro jinne la kooku boo ko takkee da ngay am far foos loolu amul sa demal ma ñëw loolu moom ñi ma ko liggéey ñëpp xam nañ ci dara allahu akbar yàgg naa koo liggéey ba ma ko dalee liggéey du tey beneen bi ci toftalit ak ndomba gi ndomba gi moom même boo ko takkoon balu fetal fetal bu ñu ko dóoroon du tàkk loolu mooy loolu mooy gàllaaj dëgg dëgg ndomb kaaraange la ndomb kaaraange la boo ko takkee kenn mënu la sànni korte kenn mënu la naawtal kenn mën kenn tibb sa tànk allahu akbar doomu aadama nag da ngaa war a am kaaraange ba kenn du la mën a dara mais gis nga nit warta bàyyi yaramam ba lépp lu ñu la mu dal la buñ sànnee korte mu dal la bu ñu la naawtalee mu dal loolu kenn du ko def surtout jamono juñ toll nii man jamono juñ toll nii li may dénk nit ñi mooy nañ buñ di bàyyi seen bopp. Mhm. ndax léegi yàqante bi dafa bari. Mhm. rawatina ci biir kër yi. Mhm. kenn nangoo tut sa morom raw la. da ngay nekk ci biir kër commencé avancé sax say mbokki bopp ñoo lay gàllankoor wala la lay gàllankoor ci biir kër ga lay ne. bari na ci ñu bëree bari bari bari ñoo xamante ni ki nga bokkal ndey ak baay moo lay loolu dafa am ci loolu dafa loolu dafa law ci réew mi. c'est bëri bëri na ñoo xamante ni sa rakk wala sa mag moo lay liggéey yàqal la sa lépp ngir ignorer la Sénégal gis nga nit surtout maa ndaw ñi. Mhm. nañ faral di sàkk sarax di faral di ñàllu. Mhm. ba kenn du leen mën a dara ndax jamono moo toll foofu. Mhm. gis nga jamono ji kenn xeebul dara. wala léeg-léeg nga gis ku nekk bitim koy liggéey liggéey liggéey ba du am dara. dafay nekk vingt ans trente ans. billaay wallaay taalaay terrain sa mënu ko am pàkk bu mu ko am. dafay nekk liggéey ba retraité wala ñu dugalee ci kees indi la. xam nga loolu dara jaru ko ci àdduna jamono dafa métti. kenn ku ci nekk da ngay jug sa bopp fas yéene raw say maas. loolu ngëneel la ndax jamono moo fa toll mais jamono ji ku bàyyi sa bopp ñu def la ko nit dafa war am kaaraange ba mm-hmm. kenn du la mënal dara dëgg nag boo gisee ñu bëree bëri bëri bëri xaw a euh, xaw mm-hmm. mooy li waralu mooy arnaqueur yi dafa bëri ndax man mii di wax ak yow rek daanaka mm-hmm. sama numéro sa heure bu ngeen ma seetsee du heure bu ngeen ma seetsee ñu bëree bëri dañ ciy profité dagg vidéo yi taf si seen numéro di ci arnaque nit ñi te man yàlla xam na ne benn numéro laa am muy 552 06 79 soo gisee ma di ko faral di wax di ci lor ay nit taman benn numéro laa am muy 552 06 79 te orange la. loolu maa ngi koy bàyyiloo xel nit ñi. mais fii sëñ bi bépp nit ku fii ñëw wala ku ma jox rendez-vous ba ne la ñëwal. boo ñëwee sa aajo dina sotti. ak fànn boo ak aajo boo man a am nag ak fànna bu man a doon. Mhm. man si bu ma la xasee wax ne la ñëwal. Mhm. wallahi billahi lazi laa ilaha illa huwa. Mhm. boo ñëwee sa aajo sotti loolu moom. nekkul sa lu may wax wala loo xam ne loolu lu may jëf la. macha man yàlla mi ñu tiim xam na ne. Mm-hmm. malade yii fi nekk nii billaay li si yàgg naa ko wax. Mm-hmm. amul benn malade boo xam man fay ko fay ko naa ko dërëm. man yàlla wax dëgg yàlla suturaal na ma ci lu bari. Mm-hmm. nit nag boo demee ba tollu yenn milliers yi. suñu borom am lu ma dénk. li nga man mooy da nga ci dimbali ñi nga xamante ni yaa leen tane. doomu aadama Sénégal bu doon ñëpp di def bu doon ñëpp naa am coono bi dina fa wàññeeku. man li ñaan yàlla képp ku yàlla dénk xam-xam. wala teraanga. di ci dimbali ñi xamante ni ñoom yaa leen tane. ndax réew mi métti Mm-hmm. situation yi doy na waar. Mm-hmm. feebar faju jafe na. dëgg la xiif lekk jafe na. Mm-hmm. kon moo tax nit ñi nañ ngi dimbalante seen biir. man gis nga sacrifice bi may liggéeyal nit ñi nii. yàlla mi ñu tiim xam na ne boo gisee ma di ko liggéey. damay bëgg bu la suñ borom dimbalee ba lépp luy teraange àdduna wuy si la. nga xool ñi nga xamante ni yaa leen tane. ngay def ay social. macha allah man looloo tax ñaari lu ci ëpp. ma ko faral di liggéeyal nit ndax damay bëgg képp ku ma ko liggéey rek. ba lépp wuy si la.

loolu moom suñu borom dénk nañu ko si fànn bi boo mën di am aajo ba maanaam mhm. lenn rek laa mën ta faj mooy feebaru dee ndax di mhm. bisab dee moom bisab dee alal mënu ci dara mhm. sëriñ munu ci dara wàcce kaamil bëri mënu ci dara bisab dee bisab dee la loolu kenn mënu ci dara waaye tawat gu mën a doon moom bu bu ma la seetalee ba ma ba ma ne la ñëwal boo ñëwee da nga tane loolu moom lu leer naññi la man bu ma wóoree ne doo tane sax du ma la jox far wallahi lazim bu ma wóoree ne doo tane fii doo fi teg sa tànk loolu moom bir na ma moom loolu moom ñëpp xam nañ ko ci man mhm. même bu dee ci wàllu sacrifice bi may liggéeyal nit ñi sax mu jëm ci wàllu am am sax mhm. bu ma wooree ne exemple même exemple bu ma la seetlee xam ne sa aaju du faju mhm. dama lay wax ne la carrément yow sa aaju du faju bul ñëw bul ñëw wallaahi lazim même bu sa aaju narta faju sax da ma dul jot sax loolu moom hmm. yàlla sun dama koo ñaan yàlla ba yàlla nangul ma loolu man tout le temps damay ñaan yàlla ma ne man képp koo xam ne sa aajo narata faju hmm. wallahi yàlla ba ma jot téléphone hmm. la lazi loolu moom dama ko ñaan yàlla malade yi fi ñëwee damay ñaan yàlla ne bépp malade boo xamante boo fi ñëwee ci man ak yaakaar gi ngay ñëw doo faju yàlla ba fi yegsi ndax man damay bëgg képp ku ma a a a sa aajo faju loolu moom suñu borom dénk nañu ko nekkul lu ñu ndamoo mhm. ndax kenn du fëgg sa dënn man du ma fëgg sama dënn mukk ci àdduna mhm. loolu yàlla rek moo yeeyoo ndamu mhm. yàlla rek moo yeeyoo yëkkati boppam waaye ñun ay jaam yu xeebu leen terewul nag yàlla am na lu ñu jagleel ñu mën ca faj aajo jaam yi ñu di ko ci def loolu kasel di ci jàppale nit ñi di ci jaamu yàlla ndax tellement que réew mi réew mi dafa métti nit ñi ñàkk nañ nit ñi sonn nañ nit ñi jaaxle nañ location yi metina na mm-hmm. da ngay gis borom njabot bo xamni day nek ci kër di fay appartement ay 200000 250000 mille mm-hmm. amel kër gi ay ay bor location ba à la fin da koy génnee génne bu mm-hmm. ñaaw mook ay njabotam wala agence ñeu bindal la kay génne la ta as gor gor suñu gor nga mën a doon tay ji bo yoré sa njabot tay exemple agence ñeu génne la sa kër fo jëm do xam fo jëm do xam nga war a xëy amoo loo lekk nga wara xey sa njabot wara jangi amo dara situation bi taxaw lépp taxaw. Mm-hmm. bor yi sëkkatal la foo jëm. genre yooyu nag léeg wa léeg man loolu laa mënta supporter. Mm-hmm. ba ma waral yenn xeetu sacrifice yu gaaw yi. Mm-hmm. ma di leen ko faral liggéeyal ngir ñu mën a génn ci yenn situation yi. macha allah man wallahi la azim mbiram fétiche amul benn mbindeef bu yàlla amul benn mbindeef bu yàlla bind. su ma la ko liggéeyee ba doo ba ba yaay famille ba bokk. ak askan wa bokk yaa ci ëppale. ndax loolu lu wér la. loolu ah? leer nañu la wallaahi lazim ah. billaahi lazi macha allah loolu moom suñu borom jagleel na ma ko man bu ma sañoon xanaa xamoo ne ñi am ba sax bëri mhm. ñoo xam dañu am lu ne gàññi ba mhm. pare ñëw ma di koy liggéeyal mhm. man man bu ma sañoon ñi ñi nga gën a sonn ñoom laa koy bëgg di defal yàlla mën leen a ci situation ci njaqar nekk macha allah am na ñoo xam yàlla da leen njaboot te amuñu loolu dafa métti mm-hmm. borom njaboot bu war a xëy war dundal sa njaboot amoo loo dundalee sa njaboot mm-hmm. loolu yàlla nañ ci yàlla musal dafa métti loolu moo waral léegoo léeg exemple may liggéey yenn xeetu liggéey ngir ñu mën a mm-hmm. ci yenn situation yi loolu kese la moo waral nag bu ma gisee nit ñi di profité ci loolu di dagg samay vidéo di ci taf seen numéro di ci arnaak nit ñi loolu dafa may métti te yàlla xam na ne benn numéro la am muy 77 552 06 79 ñi ci arnaak nit ñi di ko dagg. Mhm. di dag sama vidéo di ci taf seen numéro di ci arnaak nit ñi lool nañ ko bayyi deug la man sama numéro orange la 77 552. 06 79. loolu ma ngi koy lo xel Sénégalais ak fep Sénégalais mëna nek mhm. mo xam africain yi yépp mhm. man buma démé ci réew wi ak réew mo mëna dem ak réew mo mëna dem. ñaari li ci ëpp ñi gëna néw doole la fay gën di liggéeyal. allah man fi amul réew mu mu dul dem. bëriw fu ne lay dem. macha allah ndax limay def dama ko ta suñ borom dama ko jaglel mu don lu wër mo mhm. waral tay ma nek ci réew mi mo waral sama génn di bari. dëgg la xanaa jamono yi sa jamono yi sa dafa mhm. tombe sama gini beretul mhm. ndax tellement que malade yi dañ fi bari. te nak mono yor yeen xéetu malade yu bari ba paré di dem. lool lool xel nangou ko. dëgg la loolu daal moom moo fi nek liggéey bi ñi ngi ci gor ci lepp luñ man machallah allah sila allah si da joni joni waxtu bi jeex waxtaan nañ li nga xamante ne moom la ñu programme woon defe naa ni ñi nga xamante ñi ngi lay xaar mm-hmm. eh, yàkkamte nañ la dañ lay daal di bàyyi rek eh, nga tàggoog mbokk internet yi la doon seetaan li may tàggoo daal mooy li may conseillé état bi fi nekk mm-hmm. mooy ñi nga xamante ne dañoo sàcc alalu Sénégal mm-hmm. nañ leen topp hmm? nañ leen topp ñoom ñëpp nangu lañ yor hmm. ndax bëri na ñoo xamante ni tool yi ñu am ci àll bi dañuy gas pax ba mu xóot jël conteneur dugal ko ci Dafar ko dafar ko genre kaaw ñu ci bare bare bare bare ño xamanteni bo wiri fe sen toli yi alal jañ sàcc ma nga fa la ilaha illallah dañuy gas ponk lam pax jël conteneur dugul ko ci lu ci bare bare bare lu leer la la révélation de du wax lu xamul mukk lu wax rek luma xam la dañuy gas bom xoot toli yi am ci all bi mom lañuy gas pax bom xoot jël conteneur dugul ko ci def ko genre kaw mboolem alal ju ñu sàcc fa lañ koy dugal allahu akbar kon sonko na def lepp lu man ba taxawal liñ bëgg a taxawal. Mhm. topp ñañ war a topp ñu delloo alal ji ci réew mi. Mhm. bëri na tool yu baree bari bari yoo xamante ni boo demee. Mhm. ña ko moom ci état Macky Sall lañ nekkoon. gas fa ay pax jël ay conteneur mooy keesu conteneur lañ fay dugal. def ci ay milliards milliards milliards. te lépp alalu askan wi la. te askan waa ngi nii di souffrir. askan waa ngi ni sonn. ceeb seer na saako ceeb vingt cinq mille ñu di la ko jaay saako ceeb parfum ñu di la ko jaay vingt cinq mille. loolu dafa ëpp. Mm-hmm. diwlin kenn mëntu ko laal courant bi seer na. téléphone bi mm-hmm. seer na ndax li war a loolu. Mm-hmm. mooy la waroon a dimbale Sénégal mooy ña fa nekkoon sàcc ko. dëgg la kon état fi nekk na na topp ñëpp. jàpp ñëpp ñu delloo si alal ci ci réew mi. loolu laa leen di ñaan loolu def ko. ndax askanu Sénégal sonn nañ métti na dund gi métti na moodu moodu yi mën a ñibbisi ci réew mi mën a ci réew mi. toppatoo seen i njaboot. dara gën a métti nga bàyyi sa njaboot ginnaaw dem àll. dem Europe te la nga bëgg mënoo koo am. Mhm. sa njaboot nekk fii loo am yónnee leen kañ ngay ñëw. ndax lu li nga waral mooy dund ko seer. kañ ngay mhm. am kër kañ ngay kañ ngay génnee sa njaboot ci location. Mhm. kañ ngay sa njàngum doom kañ la ñu normal. école privée yi fii boo fay ñu dàq sa doom ba sa doole bëriwut foo jëm. li ñu ko yóbbee yëpp mooy nguuru Macky Sall gu bon gi fi nekkoon. nañ leen jàpp ñoom ñëpp ñu delloo alal ji ci réew mi jàmm na ñooy. Sénégal jëm kanam maa ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. di ñaanal réew mi jàmm waaye fii daal moom sacrifice bi may liggéey moom ñett fànn yi ma koy liggéey ku ma mhm. ko mën a liggéey lépp luy teraangay àdduna danga ko bëri la ba kenn du la ko ëppale loolu moom alaa kulli haal far foss la mhm. lu ma yàlla dénk la ma man ko mhm. di ko dimbalee nit ñi macha allah ok baax di nuyu ñëpp